bitim bataaxal nemmee nemmeeku doomu aadama wala sax ngir yëgle jënd sa marchandise yóbbu ko ci dëkk ak dëkk wala sax ci réew ak réew loole lépp ñu ko doon defee rek ci post jokkalante bi nekk yàgg demee noonu tey ji nag jumtukaayu xarale yi andi ak coppite ci lépp waral sax ba noonee nga xam ne ci lañ daan jokkalante tey ji kenn defatu ko secteur post nag war a rek adapté wu. il faut aussi ñu adapté euh, ci fànn yu bari solution bi bi poste war a ñu xool xarala yu bees yi naka la ko poste bi pour gën a mën a jëriñ askan bi pour gën a mën a am gën a mën a liggéey donc loolu dafa nekk ay xarala yu bees yoo xamante ne poste Sénégal aussi comme yeneen poste yëpp dañ ci war a góorgóorlu baax nekk ci parce que loolu mooy àdduna tey loolu loolu ñëpp di dund. jumtukaayu xarala yi nag indi ay coppite ci secteur yu bari njënd meeg njaay mi ci réew mi ak biti réew di rekk dell bu baax ci jumtukaayu xarala yi. maanaam près de vingt six mille sept cent milliards de francs CFA ñu ngi distribuer ci li nga xam ne moom mooy commerce électronique loolu nag ñun pays africains yi war nañ ci jël suñu wàll bu baax a baax mais waaye dafa laaj ñu yokk taxawaay ñu yokk organisation. tey yu bari yooyu nga xam ne nag numérique bi moo ko waral ak tamit nañu ko war a jëfandikoo ci secteur postal bi war a rek ànd ak ab saytu ak nemmeeku bu mucc ayib. xool ni ndax lañ gën a augmenter réglementation bi ndax lañ ko gën a mën a encadrer jox aussi aussi ñi ñi ñu mel ni ay ARTP ak yeneen régulateurs africains yi. ay xarala yi nga xamante ne dinañu gën a mën euh, saytu bu baax encadré bu baax sa secteur postal bi. ndakaaru nekk rek capitale de la poste africaine lu toll ci fanweer ak ñaari réew teew fi tey jii ngir rek waxtaan sottante xalaat ci rek naka la ñuy fexe ba boole jumtukaayu xarale yi ci seen liggéey waxtaan woowee nag ñu war caa rek boole ab tàggat ci régulation secteur ba waaye tamit ak marché bi.